salaamaaleykum wa rahmatulah man la Adja Kouna Rasoul salaamaaleykum wa rahmatulah man la Adja Kouna Rasoul Fall nekk fi euh, faiseur de dé. waaw développement fii si gox bi di jàppale jigéen ñi nekk koo xam ne euh, di jàppale daal doomu képp koo xam ne doomu jalaaw nga man la Adja Kouna Rasoul nekk commerçant. di dimbali lépp lu ma am nag maa ngi koy dimbalee sama gox may présenté wu man maay Adja Rasoul xanaa di leen jàppale samay propre moyen rek maa ngi leen di jàppale chaque jour ci samay propre moyen bés ni ki tey nag maa ngi tàllal sama loxo président Macky Sall mu jàppale jigéeni Jalaaw ndax bëgg nañoo liggéey bés ni ki tay tam maa ngi engagé wu man Adja Kouna Fall pour jàppale président de la république Macky Sall son excellence pour mu dem ci deuxième mandat bu quinquennat bi man Adja Rasoul engagé wu naa ak képp ku ma àndal sonn nañ jigéen ni Jalaaw sonn nañ depuis des années amuñu kenn koo xam ne moo leen di taxawu jigéen ñaa ngi ci géej gi jigéen ñaa ngi ci àll bi jigéen ñaa ngi si yéen daal lépp lu fi lu fi lu ci jigéen ñi dafa bëri jigéen ñi dañoo sonn géej gi amul dara si géej gi la ñu jàpp géej gi amul dara ñenn ñi tëngéej la ñuy dem 3 heures du matin la ñuy yeewu pour dundal seen jaboot su laa ñu fee dugaat fii 5 si ngoon ñu nekk ay jigéen yoo xam ne yu am jom lañu yu nangoo liggéey mais amuñu jàppale ma dajale leen ñoom ñëpp nag tey na leen nañu dem ànd jeeg Macky Sall mu jàppale ñu moy sen wa ni tay. amuñu ndox man mi ngay gis ni gas naa ñetti forage mais doyul dañuy dem di roti ci teen yi ba léegi ni ngay gis sonu nañ torop ñen ñi amuñu seeni doom a ngi febar. ñenn ñi seeni jëkkër a ngi feebar amuñu ku leen dimbali amuñu ku leen soutenir bu ma toogoon mom dama kay wax mu jappale ma ma jappale jigenu Jalaaw bu ma toogoon ak njiitu réew mi tey dama koy wax mu jàppale ma man Adja Kouna ma dimbali Jalla parce que sonn nañ waaw te xam naa ne bu ci jotee dina ko def ah taxawaay bu bu am importance la jigéen am si politique.